ma am première question bi benn la mooy décor bi changé na fekkuñ la Dakar nekkoo ci biir plateau yi ñu fekk la fii ci dëkk bu sell bi di Tivaouane d'abord ban yëg-yëg moo lay animé. waaw yëg-yëg boo xamante ne xam nga dafa am nit lu muy dund du lu muy wax parce que alxuraan ba mu daj amul fenn foo gis yàlla ne wax leen ma fay leen yàlla def ni jëf leen i'malu fa sayara allahu wal asri innal insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu saalihaat su ma waxee loolu ci li nga ma laaj ne ma nekkuma ci plateau fekku leen ma Dakar fii ci Tiwaawan ci suñu wàccuwaay ngeen ma fekk dafa fekk ne jiitu na suñu dund ndax euh, liir bu nekk la mu muucu ci weenu yaayam loola lay tàqamtiku ñun nag dañ nàndal ci alquraanul karim nàndal ñu ci diine ba pare nàndal ñu ci ëttu Cheikh Seydil Hadji Malick si radiallahu taala anhu mën naa ni ñaari kër lañu am balaa ñuy dem dakaar mooy kër gi nga xamante ni bi ñu juddoo ñu nekk liir wala bi ñu nekkee ci suñu biiru yaay ba ni ñu juddoo nekk liir fii la suñuy wëy jur di jaabante fii la ñuy naane ci ëtt bi donc bu ñu demee ba judd ci ñu nàndal ñu ci judd giñ ci juddu nag taxul ñu topp fii judd nañ ci ba pare ñu dem ba nekk mag muy ràññetle jàng am xel gëstu xam ci li ñu doy ne fii la gëstu xam ci li ñu doy ne fii la sooy yootu dëgg sooy yootu leer demal nga yootoo ko Tiwaawan néew ma feneen amu ko nag man à ce qui man laay wax loolu nag dem ba nga xamante ni tabaarakallaahu bàyyi xiirtal nañu ci ñu gëstu ko xam ni lii mu nekk la dara gënu koo sel yaay tamit nàmpatal ñu ci ba ñu xëy màgg nii ba tey yàlla dogal si lii yàlla dogal na waaye nag génn na àdduna dañ koy ñaanal yàlla yàlla woyofal suuf yi tiwaawan ci kawam fii lañ ko denc d'ailleurs et tu man gay ngi new laa dëkk waaye mel gi nga xamante ni cër bi bàyyi amoon fii ci jamonoy Serigne Babacar Sy tey laa lay wax révélation bu doy waar Souleymane Ndéné Ndiaye ancien baayam sama wóllëre baay la woon mos nañoo ànd nattu dab ko bi ko nattu dabe bàyyi Souleymane Ndéné mu naroon am lu ko ci topp moom sama papa ne ko toogal fee ñiy wax bu ñu ñëwee rek wax leen ne leen man mii maa def mbir mi du yow bi gendarme yi ñëwee ne xew-xew bi nu mu demee sam papa jóg ne man maa ko def. angu xew bi. te fekk na bàyyi Souleymane Ndéné la ndax wëllëre gu ñu seqoon démb tey soog a ñëw loola nag ngir fasante kóllëre ak bëgg a musal koo xamante ni sa wëllëre la nga génne ko ci ngar daaju mbir ma mujj na mbir mooma dem ba sedd ndox yàlla wis ci ndox mu sedd kooku nag tabaarkàlla mooy suñu baay di El Hadj Abdoulaye Ndiaye dund fii dundu jolof ñun nous sommes jolof jolof descendant Albouri lañu bokk boo demee jolof muy Linguère Daara euh, Njoosi fu mu ci mënti doon foo foo laajte foofu euh, nu ñu koy tuddee ci suñu dëkku woy juró euh, famille Dia mbëllaxe foo fi laaj soose Ndiaye famille Socé Ndiaye ñooñu ñëpp ci suñu famille lañ ñun foofu lañu cosaanoo suñu wàll suñu wàllu geñoog baay mais nag geñoog ndey ñu ngi njàmbur côté Louga dëkk bu ñuy wax Mengue fa suñu maam juddoo waaye ñoom suñuy waajur yi yëpp yàlla yóbbu leen ci liggéey bu ñu doon liggéey Kaolack ba ñëw daanu si Guinguinéo yàlla dogal nag ñu dund ci xaadara bi nàndalu ci xaadara bi yëpp. en l'unanimité boo nee El Hadj Abdoulaye Ndiaye bu gaay ngi new ñu ne la ak gaynde dëgg ngi noonu gaynde gu mosuta reculer gaynde googu nag moo ñu jur tabaarakallaahu nàndal ñu ci ñu màgg gëstu xam ne lii mooy dëgg ñu fekk si leen en tout cas am na solo ak rappel historique bi nga xamante ne def na ko ku ko dégg dina xam ne tempérament wu imaam loolu moo koy justifier alors ñu nekk ci Tiwaawan mbiru diine indi ñu fi yemoo fi ñuy jeexalee liggéeyu grande mosquée bu Tiwaawan yem ak aussi xemem teefu euh, njiiti réew mi président Bassirou Diomaye fay ngir teg direction boo xamante ne dafay saytu mbiru këru diine yi d'abord ñaan ñooñu boo ñu ko doon jàngatal ban gis-gis nga si waaw jàngat bu njëkk bi xalaat boobu moom la ñu campagne mooy conseil des affaires religieuses bi ñu nar a teg biir pale junjoon na ko ci biir campagne am mottali moo ca des yàlla nañ ci yàlla yóbbu dafay am solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax léeg-léeg dinaa di dégg sax ñenn ñi di kaas naan Jomaay wala président Ousmane Sonko bu ñuy war a def sorti ci këru diine yi comme que am nañ mouvement bu toll ne Modab war nañuy jël Modab di leen intégrer ci biir mais loolu bu jotee rek dana am ñu bañ a jiitu pàkk ci mbaram parce que loolu baaxul te kilifa tamit. ku ko njëkk yeewu da ngay tëddaat ba mu yeewu nga soog a jóg yeewu nag boo defee loolu mat a bàyyi xel waaye li ma lay junj foofu mooy loolu ñuy nàmma tëral ñu tëral ko ba pare nomination yi des ci mooy libérer sëriñ si waxuma sëriñ si libéruñ de libre nañ libre nañ ci seen wàllu jaamu yàlla mais moo leen di libere ci maanaam seen relation ak gouvernement bi parce que moom ci biir wax xam nee na mu ngi doon wër personnalité boo xam te ne du laale dara ak wàllum politique dafa mel ni loolu nga ñu bëgg a. c'est ça ba ba waxuma du laale dara ci wàllu politique waaye këru diine yi fii ñu nekk nii dafa nekk lu sensible ki ngay war a yëkkati mbir moomu di ko jox néewuma kuy tëdd njaaxaanaay la parce que kenn koo gis fukki nit la ñuy bunge mais tey dana am équité ba nga xamante ni duñu ci gis luñ koy sikkee wala duñ ci gis luñ koy xalabe. booleeg nag am ang ay ñoo xamante ni dañuy topp ci moom ñu nekk mu nekk bureau wala ñu nekk ay encadreur comme ni nga xamante ni noonu la conseil économique et social comporté woon nga xam ni këru diine bu nekk mën naa ni këru kër yu tarixa yi sax ni këru Sénégal yëpp këru diine la këru tarixa bu nekk da nga ci mën a gis sa bopp ba bu ëllëgee bu président wala premier ministre di bëgg a wax a kilifa yi dana am fu gën a yomb fu mu koy jaare wala muy def jëm ci këru këru diine yi dana am fu gën a yomb fu mu koy jaare këru diine yooyu tamit danañu am ñoo xamante ni ka fa nekk njiit dana mën a doyloo ci kooku ba lu muy wax ak lu muy digee dana koy mën a jaarale ci kooku kooku ñëw jokkoo ko ci président président wax ko premier ministre premier ministre exécuté ko ak ministre bi nga xamante ni moo yor fonction boobu tëralin wi su ma juumul foofu la nar a jëm te su boobaa nag day wuuteek lañ fi daan doxalee 1960 bi ba léegi. la 1960. dama mos a toog benn bis sëñ Abdoul Aziz si di ñu nettali yàlla na yàlla yokk leeram ne ñu léeg-léeg état bi jël ay otoom ak motaaram ak yëpp wiiw wiiw ba egsi bu ñu génnee dem politiciens yi wala lenn ci taalibe yi njortu ne indaale ñu indaaleen nañu ay malet jox ñu ko. mu ne ah xaw ma fan de waaye fii ci Tiwaawan ci li ma xam man ca jamonoy sëñ Babacar Si ba fii bokk ci mu ne ñu am na benn gàmm goo xamante ni Senghor bi mu yónnee ka ko war a représenté xam nga ñaata la jox sëñ sëñ Babacar ci gàmm gi téeméeri junni. gàmm ni mu toll ak. gàmm mu toll préparation. préparation yeeg yëpp ni ñu ko ko joxe ci enveloppe bi moom sëñ Babacar Si. ci la ko yëkkati dénk ko Serigne Abdoul Aziz Al Amin ne ko ak ah sa gaañi de bi ñuy ñëwee bay ñoo joxe loolu xaw ma nag lu nekk ci biir dajjiwu ko de xaw ma lu nekk ci biir mais téyel ma ko Serigne Abdou nee na téye naa ko gàmm gi passé pendant des années wala boog astaghfirullah pendant des mois góor gi woowu ma laaj ma ko ma jekki ba mu yàgg rek am ñu ñëwoon doon yëgal si sëñ Babacar Si ne ñoom dañu bëgg a tabax jàkka juma ñu war a def pose premier pierre ba ñu doon ñëw di ko ci yëgal pour mu war a mën ñëw wala mu yeble fi saa si xelam demoon ni dénkoon na Serigne Abdoul Aziz Sy Al amin benn enveloppe mu woo ko laaj ko ko mu jox ko enveloppe bi bi mu joxee enveloppe bi mu yëkkati ko teg ko ci loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëwoon doon sàkku si pose premier pierre ñooñu bi ñu ko daajee la ñuy saw nga xam ne cinq cent mille la pour waxal la ne la boo demaan ci yeneen këru diine yi lañ leen di jox xaj na lee mooy ëpp li ñuy jox Tiwaawan sax. imaam mën nañ si jàngatee que këru diine yi ñoom fekk nañ ñu pare bu yàgg parce que 500 millions bu ñu ko defee si gàmm gi fekk moom sax utiliser ko dem ba def ko si juma. day wane ne ah, ba léegi sëñ Abdou wax na ko fii toog na ne leen bu leen yaakaar ni que ñii di tëlëx tëlëxi di ñëw ñoom ñoo ñu yore yoruñu ñu au contraire bu ñu ñëwee dañuy sëgg wax ñu seen soxla ñu jël seen soxla sos ak soxla si réew mi sëgg déeyanteeg yàlla wala ñu am ñoo xamante ni jeex nañ tàkk ci yàlla ñu dénk leen loolu jaayanteeg loolu ñu ñu déey yàlla ñaan ko yàlla nangu stabilité réew mi dénkuñu ñu poosu ñi ci réew mi jikko yi ñi ci réew mi lañ ñu dénk pour ñu defar ko mais nit ñi nag xamuñ boo autorité wala premier ministre wala président ñëw yàlla bu ñu yoree saak yooyu xam nga ni ko daan Macky sàll di defee dafa ñaaw xam nga lu toll ne ministre boobu te mu tuuti gàddu eh, eh, benn saak naan waaw lii cinquante millions loolu du teggin du sutura yooyu nag day dem ba mooy dugal nit ñi ci tuuma te nag man daxal daxala baaba tuuma ut ma ko dugg buntu tuuma ñu tuumaal tuuma ñu tuuma la imam mais ñu gis tamit taxawaay bu bees bu président de la République Diomaye Faye daal di adopté Ousmane Sonko fekk si ko aussi mu mel ni taxawaay dindi tuuma la parce que leen doon diaboliser bokk na si bu ñëwee këru diine yi dootuñu leen jox yitte